asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 7 août 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay sunu lamb leen xëy tey doore ko mu mel ni ki yëglikaay ba nag tey dafa xëy dem fa nga xam ne moo di géejawaay école de Balla Gaye daal di fa def defu taxaw seetlu maanaam daal ab jàngat ci lii nga xam ne nii moom lañ nekkoon di am saison te saison ba jekkee jekki taxaw mel ni ki nag moom saison boobu soo bëggee dégg dëgg daal école de Balla Gaye moom defuñu fa loo xam ne nii maanaam lu dal am xel la loolu nag ki ñu ko xëy tey xamal kenn ku dul ki nga xam ne moo di Iba Kane mu mel ni ki daal écrit ba moom dox da koo defatul ndax nag yëglikaay ba mu ngi ñu xamal ne bu dee ki nga xam ne nii moom moo di Balla Gaye numéro 2 la moom daa mel ni moom ci ay kiyam daal la nekk maanaam ay vacances am ba tey ba mu jógee ci Modou Lo ba tey kenn gisaatu ko mu takk ngem dal di bëre maanaam daal année blanche def na ko daaw te itam loolu yëglikaay bu ñëw na wax nu ko keneen ka ca des moom muy Elton mu mel ni kii nag kooku moom comme nañ koy wooyee le bulldozer de l'arène daa mel ni nag yëglikaay bi ne nañu daal bulldozer ba ndax paanul ndax moom itam gëj naa am combat takk ngemb bëri ci lamb ji lees numéro 2 moom tamit mu nga ca suufa suuf kenn gisatu ko ci biir lamb ji mu takk ngemb bëri keneen koo xam ne ni ba tey ci écrit ba la ne ñu koy wax sukkusim moom juróomet yoo xam ne ni daal toog na ku bëriwul maanaam cinq année balance la teglante mu mel ni kii nag mbir mooma mooy la fa am yëglikaay bi ne na sept victoire la ñu jot a def ren ak li nga xam ne moo di huit défaites waa école de lutte Balla Gaye loolu yëglikaay ba xëy ñëw tey wax na ko am na fa ay xale yoo xam ne nag moom boo bëggee dégg-dégg daa mel ñu ngay jéem a assuré mbir ya donte yombul muy Balla 3 ak bébé Elton am na xale yoo xam ne tamit yëglikaay ba ñëw na ca ñoom muy Ndiak Diop ak ki nga xam ne nii moom moo di ka nga xam ne moom mooy am na ay xale yoo xam ne daal ñu nga fa di wane seen bopp yëglikaay ba xëy na tey ñëw andil ñu lu mel ni ki noonu mu mel ni ki nag seenub entraîneur moom di ka nga xam ne mooy Lamine Golo Lamine na ko yi moom xamul sax laka na koy niru wala naka la ko mën a waxee Lamine daal ne na la ne woon ca ma nekkul woon lan lu dul la nga xam ne mooy sunu lamb door ba mu jël ko waaye na ak nii moom na da doy na waar lool lool Lamine Golo moo xëy di wax loolu ci yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu lamb ba tey bu nu continuer fa nga xam ne nii moo di ci yëglikaay ba ka nga xam ne nag dana bëre seen tête profil ba ñoom waa école Balla Gaye di Gris Bordeaux yëglikaay bi xëy na ñëw ci Gris Bordeaux ak la nga xam ne daal ay atome la ci combat boobu moo xam lu jëm ci wàllum force physique am expérience am ak ba xëy ñëw wax na ba tey école Balla ma fa ne ñu de Balla que mu war a bëreel moom muy général Malika mu nga xëy di ko dànkafu ci yëglikaay bi général Malika daal la mu wax fils de Balla nee na ko du yow yaa ma mën a arrêté loolu moom bu ko yeb ci sax ci sa am xel loolu na xëy tey di ko ko wax ba tey du mu génn géejawaay ndax ab promoteur bu fa dëkk ñu koy wax jéy seen xëy na taxawal combat boo xam ne daal combat xale la waaye combat ba loo ci mën a dégg neex na amateur yi ndax dem ba tey ñu ngi koy yaal yaale yëglikaay bi xëy na xëy na andil ñu ko moom sunu làmb mooy ka nga xam ne nii moo di Liss Ndiago ba nekk ci jàmm gën ak ka nga xam ne moo di caatu rëbës ba nekk fa nga xam ne mooy ca rëbës mu mel ni kii nag combat ba moom boo bëggee dégg-dëgg taxaw daal dina koy def te ka fa jaar du kenn ku dul jéy seen yëglikaay baa xëy ñëw tey wax nu ko leneen loo xam ne nii wala keneen koo xam ne nii moom ke muy bëreel rëbës la ne jiiteek riba muy ki nga xam ne moo di coins coins bu lamsaar daal digganteem ak ki nga xam ne moom moo di double moteur yëglikaay bi ne day maanaam wàllum énergie ak puissance soxla na ko lool ngir mu mën a am ndam ci boobu combat yëglikaay ba moo xëy ñëw wax nu ko keneen koo xam ne nii moom daa mel ni ay ndam mu ngi koy teglante muy ki nga xam ne moo di Aziz Ndiaye yëglikaay bi xëy na daal ñëwoon ñu ci moom ak la nga xam ne mu ngi koy dominer xaritam yi ci wàllum bëre maanaam fu mu sampee ak ñoom daal jëm ci wàllum bëre moom daan na leen di def ba toog ci seen kaw yëglikaay baa xëy ñëw tey wax nu lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne dañuy dem wala boog feneen foo xam ne dañ fay toxu muy record record nag moom dafa xëy ñëw tey andil ñu ko nga xam ne moo di rëg-rëg ci diggante ma guy gi ak la ko cay xaar di juróomi mbir yoo xam ne daal yoo xam ne la yu koy nëg a nëg la moom rëg-rëg maanaam daal ba ca jëkk moom bokk na ci wàllum ñàkk daanu gi nga xam ne nekk na ko ci làmb ji mu continuer ko ak yeneen yoo xam ne war na ko faa mën a wane ak itam gën a mën a romb mbër yi nga xam ne ñoom ñoo di ay Modou Anta ak ñoom Forza ngir mu gën leen a mën a sori ak yeneen yoo xam ne yëglikaay ba tënk na ko la ko koy may nag mooy mu am ndam yëglikaay ba moo xëy ñëw tey wax nu lu mel ni kii noonu ka mu war a bëreel muy guy gi moom yëglikaay ba xamal nañu daal li am ba moom daa mel ni samedi ji nag la am rendez-vous ak ña nga xam ne ñoom ñoo di waa GFM yëglikaay na ci réew yëglikaay ko Leewtoo point net waxe woon lanu ko tey record xëy waxe muy mu nekk nii nee nañu moom avance lay xaar ci digganteem ak Eumeu Sène yëglikaay ba xëy ñëw wax nu ko keneen koo xam ne ba tey nee nañ avance am lay xaar ba tey encaissé gul muy Balla Gaye numéro 2 ci combat warax ci digganteem ma Gris Bordeaux record a xëy ñëw wax nu ko ci la nga xam ne nii moom moo di combat boobu daal Balla Gaye de ba tey encaissé gul yëglikaay ba nag nee na Aziz daal moom moo leen wax lu mel ni kii noonu keneen koo xam ne nii moom encaissé la bëgg ba bëre muy jën kayre moo tax mu nga xëy tey di wax ay dëggam maanaam mbër yi koy daw daal di ko moytoo ko invité la xëy tey di ko wax moom jën kayre ci yëglikaay ba nga xam ne moo di record mel ni ki daal kon yàgg maar loo ci mën a dégg daal lamb ja moom xam naa ne Sadio def na ko ndax avance yaa ngi dugg di génn ñii di jot ñuy defe nii waaye li ci am solo daal ba am solo yàlla na corona bi dem ba jeex te itam bu ko defee làmb ji mën a continuer waaye yàgg maar lees waxadi waxadi corona bii war nañoo nag gën a jël ay matukaay ndax loo xam ne saa yoo xëyee muy yokk di raam di dem rek te amee su ci solution nga yaakaar kon ñun du ñu jëlal suñu bopp suñu ay dispositif balaa ñu naan no def leen ñi ñu defal ko suñu bopp yàgg mbokk waa Leewtoo TV ni leen di nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndoon si rêve de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la maa ngi lay delloo ziar Ndeye Coumba di la fay di la delloo ziar di nuyu ñi ñuy suivre ci Leewtoo TV di leen ziar ñoom tamit si àjjuma ji di leen ñaanal jàmm te di ko sàqu si ñoom hmm. Babacar tey moom sa jasneer moom rafet na de foo jaar merci waaw kii de sama benn waay bu ñuy wax Babacar Ndaw rek di jaaykatu jasneer nekk ca Marché Salem moo fi jaaroon ak man ci tabaski bi xam nga hmm. ku ñuy wax laasana tamit di sama xarit di sama rakk. waaw moo jaar non moom moo jaar ci ñaw bi quoi laas laas création. nekk fële ca Notre Dame. école ah, Notre Dame mooy bu doon laajte noonu. voilà moom moo ko <laughs> ñëw gis nga ñëw bu yiw bi mu ko ñëw. du mu eh. baat. ñooñu daal ñoo def lii tey. daal yi non daal yi moom du ma ko jënd moom. yaa ko jënd waaw non daal yi moom daal yi moom maa ko jënd daal la. nañ ko may daal yëpp nañ ko may kon muy nuyuwaat Ndaw rek marché HLM di nuyu tamit laasana xam nga ñoom laasana di tailleur bu mag a mag xam nga macha allah ndax lii moom boo gisee rek xam ne ki ko ñaw du ngaaga. Ah, waaw man dama laaj ku ma ñawal. waaw ku la ñawal. waaw lii de Babacar Babacar Diome bu taxaw bu nekk ni sa wet. waaw moo fi jaar moo ma tane yàgg maar amul ma benn njëriñ. <laughs> Babacar daal moo génn fii eh, yàgg maar jëlal ma lii yëpp dégg nga sense bi fii de Babacar moo fi jaar nga ah. ne lakkee ko yàpp tabaski bi. waaw waaw waaw du mën a <laughs> kan moo ko ñëw sax moom. Gora Gora. mu ngi 37 ah. Medina. waaw Gora moom macha allah. yàlla na loxo bi wér. dafa aay moom xam naa sama mariage incha allah rek. waaw incha allah robe benn muskile incha allah. Eh, dafa xëy na dalal ki nga xam ne mooy école de lutte Balla Gaye école nee ñu nag école de lutte Balla Gaye daal mi ngi def net régression maanaam mi ngi wàcc bu baax a baax ndax am na 7 victoire ak li nga xam ne moom mooy 8. 8 eh, eh, nee ñu chef de file bi léegi takkaatul ngembam ndax saison blanche foofu la jógee alter moom bulldozer lañ ko wee moom dafa mujj sax moom paan dematul demul dikkul Babacar waaw mu mel ni kon école de Balla daal boobu dëggee dëgg dëgg ni ko yëglikaay bi xëy tey bind saison bi mu démarré li ñu jot am ci ay combat mooy loolu sept victoire ci ndam huit hmm. défaite muy loo xam ne résultat ba baaxul euh, bi ci des mooy mbër yu mag yi gisatuñ leen ñu bëre moo xam Elton la moo xam Sokosim la moo xam lees numéro 2 la ba Lo la defe naa def na fi année blanche te ba tey nii mu ngi taxawaat mu nekk loo xam ah, lu doy doy waar boo xam ne euh, yaakaar naa ne bi mu ñëwee yàggul waaye wane lu leer nañ mm-hmm. parce que am nañ fi roi des arènes am fa ay mbër yoo xam ne mënoo lim lamb te boole woo leen ci ko ci fàtte mënoo ci fàtte Elton ak ñoom Sokosim ak yeneen mbër yu nga xam ne ni ñu nga ca école ba muy école boo xam ne vraiment exemple la ci école ndax bi mu ñëwee tax na école yi gën a yokk kon yaakaar tey ba mbir yi di wàcc bay demee nii rawatina seen coach yi nga leen yor mën nañ ci ñoo fa nekk parce que ku ne xam ne ne yaa ngi dégg kon nag ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo yore tey école ba di entraîner ñoom ñu war a gën a xoolaat mbir yi gën a tegaat mbir yi ci aw yoon parce que li ma lay wax la rek affaire bi bu ñu formé tey ñu mel ni Balla Gaye ñu mel ni Elton les deux ak ñeneen ak ñeneen defe naa war nañu jéem a na ko ñoom père Balla Gaye Ndour defee woon ñi nga xam ne ñoom ñu ñëwaat ci suuf nekk ay coach war nañu jéem a fexewaat ba yu mel ni ñoom Balla Gaye ak ñoom les ak ñoom Elton mais loolu tam li koy maye mooy xale yi tamit nangu nangu la ñuy nangu woon pour ñoom mu mën a nekk fi ñu war a nekk waaw Lamine Gallo ki nga xam ne mooy coach bi moom nee na daal dafa dafa dafa am déception bu mag a mag moom daal objectif am yëpp daaw mu naan nga gagné euh, li nga xam ne moom mooy. Euh, sunu lamb door waaw mooy li ma la wax sànq rek kon Lamine daal comme loolu lu ko naqari la maanaam dafa déçu comme ni mu koy waxee maanaam li ko war nag moom moom mi nga xam ne moom bu fekkee mooy entraîneur principal ba ak encadrement technique ba ak administration écurie ba ak supporter ñu toogaat. ci yi bët waxante dëgg xool li war a mën a ne ñu def ko pour école bi gën a mën a avancé lu loolu itam soo ko defulee mbir yi day gën a suux rek mm-hmm. waa ndax dëgg moom li ma la wax rek ndey kumba faal lépp looy def ci àddina lu ma mën a doon te naxante rek lal ko ak wax yu kii bu sori du yàgg man maa la wax lii Eh, Babacar ñu des toujours géej waaye nag ak Dieye euh, production euh, promoteur bi taxawal na combat diggante Liss Ndiago ak Cacaatu Rëbës Babacar. waaw muy combat bu neex parce que ku xam ñaari xale yooyu boo xoolee dem groupe WhatsApp yëpp ñu ngi fay waxtaane mbir moom mu mel ni euh, parce que ñaari xale yoo xam ne ni macha allah mën nañoo bëri am nañ ko de popularité. ndax caatu rëbës ku ne gis na ne tey wax dëgg yàlla xale la boo xam ne waa làmb bëgg nañ ko te am na mbooloo am na supporter te itam xale bu mën bëre la macha allah te taxut mu gudd rey mais dafa mën a bëri lii si njaago moom defe naa mbooloo tey am na mbër yu mag yi fay koy million sax ëpp ñu ko mbooloo defe naa ne bi mu mujjee bëri arène nationale ku ne gis na kera lam fa def buy def open press am boo jëmee jàmm gën da nga yaakaar Siteu mooy def open press yaa ngi dégg te loolu lépp li ko waral mooy nerondoo ci koñ bi ànd ak ñi nga war a àndal nangoo bëre mën a bëre di ko def kon yaakaar na daal jéy seen ah loo ci mën a dégg génn ci combat boo xam ne dugg na ci combat boo xam ne nii dinañ fay combat ay millions combat bii ñëw ëpp ko maanaam ëpp ko mbooloo te bu cee waaw yàlla nañ ci yegg ak jàmm nag. amiin Babacar te nag coronavirus abal na. waaw incha allah ah xanaa dina dem laa foog de. <laughs> dëgg nañuy ñaan rek. waaw suñu jógee nag géejewaay dañuy dem nag fi nga xam ne mooy Fass si euh, le troisième tigre de Fass suñu lamb la dafa ne euh, am na daal ay euh, atu yoo xam ne war na mun a su ko Gris Bordeaux am na ko pour mën a daan ki nga xam ne moom mooy Balla gay de maanaam nee na am na force physique am na li nga xam ne mooy expérience am na aussi mën na xeex lool. waaw loolu la yëglekaay bi jàngat tey que ni atu yi mu am bu ko indilee Balla Gaye mën na ci am ndam. waaw bi ci jëkk mooy force waaw force moom ku ne xam ne ne yaakaar nañ ne ci liñ ko gis mu bëri ci làmb mbër mi nga xam ne mu am force la force nag li koy renforcer mooy nga liggéey entraîner kon yaakaar naa li njëkk pour force boobu nga mën ko ak physique bi mooy nga liggéey lu doya doya doya expérience tamit am na ko ndax yaakaar naa 97 ba tey ba mm. defe naa du at yu ndaw nga nekk ko ci làmb am ci vécu day day jaadu xam ci lu bare bare bare am ci expérience parce que lim ci jànkoonteel ci ay bis yu neex ak bis yu naqare ak yeneen ak yeneen bëri na ba nga xam ne tey yaakaar na amatul lu ñu ko mën a jàngal ci làmb xëy na nag mbër moom ak lu mu kawe kawe kawe terewul dana am encadrement des na wax ak moom nekkul lii ak laa parce loolu mooy àddina waaye nag am na vécu bu toll ni tey war na mën a jàmmaarloo ak ma euh, dana am xalaat naa ko bii yoon moom daa mi ngi after ki nga xam ne moom la war a bëreel muy fils de balle neen daal fils de balle mënu ko téye mënu ko arrêté waaw moom de loolu la ma sa boobu ba tey loolu lay wax de saa yoo ko dékkee téye micro général Malika moom danaan fils de Balla taxu koo jóg parce que jàpp na li muy entraîné moom du ko entraîné li muy liggéey du ko liggéey te moo ko dàq bëri mbër nag yàgg naa wax loolu waaye itam na xam ne rek adversaire la am waaw loolu moom na ko sóoraalee te adversaire bi itam jógul pour man lekkul avance ngir ñëw rek daanu ñibbi yaakaaruma te fils de Balla xale la te tey ci ñi topp ci ginnaaw Balla Gaye 2 la bokk te bëgg na tey fi ñoom Balla Gaye yegg mu yegg fa te bokk na ci li ko ko mën a may mooy combat ak général Malika bi mu wane fa leer kon daal général loolu muy wax jaadu na ci moom waaye itam nañ ko xamal ne am na adversaire bu nga xam ne nii moom mooy Fils de Balla te Fils de Balla itam ndam la bëgg ci combat boobu suñ jógee nag sunu lam dañ dem fi nga xam ne mooy Reug Reug si xalima ki nga xam ne dalal ki def ay euh, ay points yoo xam ne ay points forts la si ki nga xam ne mooy Reug Reug moo war a tasante ak guy gi moom nee na am na cinq défis yu koy yoo xam ne moom lay moom moo koy xaar moo koy xaar maanaam euh, bëre ak euh, guy gi garder invincibilité maanaam bëre peut daanu ak guy gi bëre ak def cinq def réussir 5 5 sur 5 fi nga xam ne mooy Guédiawaye ndax ginnaaw mu daanee Obama Balla Gaye junior ak Elton nee daal bëgg na daal teg texte ki nga xam ne moom mooy euh, guy gi. waaw bu ñu ko tënkee daal mooy juróomi mbir yoo xam ne ñoo koy xaar. Mhm. la ca jëkk nag Guédiawaye ga fa ay ndam daanoo gu fa daanoo gut ci làmb ak tamit raw ñu ni ñoom mu daan tax ñoom Forza ñi nga xam ne ñu ngi ci ginnaaw ak yeneen yoo xam ne nii maanaam war na koo xaar muy 5 défis yoo xam ne loolu la Abou Ndour gis tey mu mel ni ki nag loolu moom li ma la waxal sànq rek liggéey mhm. ko xamal ne am na adversaire parce que guy gi moo mën rëg rëg moo mën guy gi rëg rëg moo mën guy gi mbër balaa ñu ñu ko nga koy man dañuy bëri man ci li xam dañuy bëri ba pare mm. man loolu laay jàpp dafa am na loolu nag man na nekk maanaam bala ñoo dem si combat nag dinañu jàngat combat bi mbër yi ku ci ne ndax am na favori ndax amul favori parce que loolu day am si làmb waaye daal moom Reug Reug mii gëm na li muy def mën na ko masha Allah waaye mu ngi bëreeg mbër moo xam ne itam ku gëm li muy def la muy guy gi ndax dama koy waxaat li ko ko may tey mu yegg si fi moom guy gi mooy gëm li muy def mais nag cinq défis yi koy xaar yëpp bu ci yomb amu ci moom Reug Reug Mhm. Babacar nag ki nga xam ne nag euh, euh, journal record ñu ngi wax ni que Diène Kairé daal moom la Abou Ndour dalal moom nag mi ngi fay wax naan mëri il faut nu arrêté tamit du ko du ko moytu moom waa Diène daa mel ni ay combat ah, mbirum jënd njaay la waxaale la ci prix ba juboo wala adversaire bi ñu ñëw ne la diw ndey kumba faal diw nga ne ah bëréewuma ak moom parce lii moo tax andi say argument teg eh, ba ba ngay gis lu dal sa xel loolu lépp day am si làmb lamb loolu yàgg na ci am mais ak lu mënta xew moom moom jën kay yaakaar naa dina am adversaire moom ah. Ah. su demee nag si acte de l'arène yi nag foofu nag amandoo mi ngi ñuy wax ne depuis bu Bombardier yi bisee euh, depuis presque une semaine boobu leen nag mi ngi xaar avance am Babacar hmm. mi ngi wax tamit nee ni loolu Aziz moo leen ko wax hmm. ah muy mbir yoo xam ne tamit ah doy na waar mais li am solo daal mooy nañ ñaan yàlla rek ku ci ne ci ñooñu jot sa avance parce que combat yu mën parce que combat yoo xam ne siiw na ba pare wax nañ ko